asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokki jullit yi mbokki taalibe yi dal leen ak jàmm fii ci Badar Gueye Badar nag teewaay bi tey li ko waral moodi di li ko daan waral at yi yépp guddik ganek àddina yonent bi alayhi salaatu wasalaam la màggal ñu gën koo xam fii ci biir réew mi mu di gàmm ki ni nga xamante ni bii noonu lañ koy amalee ci yoonu murit ak ni nga xam ne noonu la ko sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba diglee ñu koy màggal ci sunna taxsimuhu bi sunnati noonu ne nag lañ koy amalee muy loo xamante ni bii daanaka xaaruñu rek guddi gi jot ngir ñu màggal bés bi waaye tamit li nga xam ne noonu lañ koy defee moo di ginnaaw bu ñu yeewoo ci bis bu tedd lañuy ñu door daanaka li nga xam ne moo di liggéey bi yépp bismillahi rahmaani rahim laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum ma anittum hariisun alaykum bilmu'miniina ra'uufun rahiim fa in tawallaw faqul hasbiya Allah laa ilaaha illaa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sadaqallahul azim ki ñoo ngi leen di siyaara di leen jéggalu bu baax tey am mbégte mu rëy ci li nga xam ne amal nañ ko fi muy alquraanul karim ci néegu yàlla bu tedd bi moo tax tey jii ñu tàmbali woon jàngam alquraan mi nga xam ne moom mooy ubbee bépp jotaay boo xam ne jotaayu lislaam la kaamil yi nga xam ne xale yi jot nañ ko fee jàng bépp xaraf wuñ ci jàng rek ñi ngi ñaan ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa dëkk bi seen yéene ak seen pas-pas li tax ñu amal bis bi rek wu ci nekk rek suñu borom nangul leen ko ci barkeb alquranul karim nan ngeen koy gise ci image yi mbooleem mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi jóge nañu ci gox yu feccantikoo ci biir réew mi ñoom ñëpp daje ci dëkk bu sell bii di Badar ngir màggal guddi gi tedd googu nga xam ne képp ku jullit war nga koo màggal laysa قبله ومعنى الجزاء صلاة من كرمه يلقاني على الذي دون المراء القاني همي وجود لمن قل لي asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waa kuréel ahlul badar yi nga xam ni ñoo nekk fële ca Touba Castor ca dakaar ñoo ñëw fii tey ci badar ngir waajal gàmmu gi nga xam ni moom la ñu amal at mu ne ren ji nag muy édition 2019 bi kuréel ëxlu badar nag yàgg ci am taxawaay boo am solo boo xam ne at mu ne dana ko ci amal ci ziar bi ci ci ci euh, li nga xam ne mooy gàmm gi ak mbooleem activités yi nga xam ne am fii ci badar kon nag tey ji ñëw fas yéene jox ki nga xam ne moom mooy jëlun daara ji di sëriñ Mouhamadou Racine Ndiaye mu dikk ak mbokki taalibe yi leen taxawaay bi nga xam ne kuréel ëxlu badar dina koy am kon ci bis bi xamante ne moom mooy gàmmu badar ñoo ngi nuyu ak di ziar mbokki téléspectateurs yëpp di nuyu itam ñi ma àndal waaye ñu ngi jiital ci nuyo bi ak ziar bi ah sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaan suñu borom mu nekk loolu tawféex ak wér noonu itam nañu nuyoo waa dëkk bi di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo kilifa dëkk bi di ka ñaan ñaanal moom itam suñu borom bàyyi ko fi loolu yàggal ko fi ak jëriñam jëriñam suñ Seexuna ak mbooleem ay rakkam ak magam yi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi ni waaw suñu taxawaay fii si ahlu badar nekk na taxawaay goo xam ni du lu bees lu yàgg la suñu borom dogal suñu diggante ak ñoom ab kóllëre koo xam ni la ko mooy liggéeyal borom dëkk bi fi nekk yàlla na suñu borom taas ñu si barkeem te yokk ay leeram fii nag suñu taxawaay tey jii si gàmmu gi la waaye nekk suñu njëkk taxawaay ci at mi ndax boo seetloo daan fi ñëw léeg-léeg ci biir at mi ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor dëppoo ak bisu xare Badar mu nekk événement boo xam ne xëy na duñ ci du lu yees si ñun ndax yàgg nañ koy taxawee muy ay addiye yoo xam dañ koy jibal di ko indi fii nga xam ne moom mooy dëkk bi ndax kenn xamee Héllo Badar moom kuréel la goo xam ni day yëngu ci xasida yi waaye itam day yëngu ci social daanaka sax social bi xëy na moo ci ëpp doole donte ne xasida gi itam bàyyiwuñ ko gannaaw ndax kuréel la boo xam ne da ko sos rek ngir e, liggéey borom Touba ci jaam ñi te loolu mënoo ko def lu dul nga jaar ci social bi moo tax léeg-léeg ñuy fay di dikk fii nga xam ne moom mooy Héllo Badar nga xam daanaka jëriñ ju mag ji fa la nekk mu seen Cheikhouna moom mooy kilifa daara ji moom la dénk suñu liggéey bi mu koy saytu di ñu wax fi ñuy jaar ak mbooleem ñim ñu boole ñëpp bu ko defee kon action yooyu ñuy def nag ci weeru koor bi dañ koy jëmal ci dongo yi jàppale leen seen nekk ak seen taxawaay noonu itam nañuy teewee fii ci Badar ci gàmmu gi ndax loo xam dañ cay bokk doo xaaku la ca woo te ñu dañoo gëm ñi dañoo bokk ci Badar bokk ci li war a suuxat bokk itam ci lépp loo xam te ne si liggéey la bu fa war a jub moo tax sëñ bi bu joxee ndigal li amatuñu dara luñ ciy xaar ànd ak moom ci liggéey bi mu waroon ñu déplacé wu ñëw fii ngir ànd ak moom bokk ak moom bis bi muy bisu gàmm. jàngum xasida bi itam xam naa ne lu am solo ci ndax euh, ñun ñoo fii ne ak euh, yenn ci yenn kuréel yi ndax Alubadar dafa yaatu. ñëpp kenn ku nekk am nga ci làcc boo xam ni moom nga war moom nga moom nga war a béy kon mel na ni ñun itam ngoon si incha allah ñun ñoo war a yor animation bi jëm ci wàllum xasida bi xam naa bu njëkkee tàkkusaan nga koy tàmbali jàng nag jëm ca jëm jëm timis incha allahu taala سبيا على المكلم كلم ودوري أبي على الرسول باب الوصول salaama Abdailah, Abdailah, Hayra Liba.

وجعل guddal saw fan ndax lii nun ak yokkute ak yokkute la ci nun yow ak yokkute nga ci nun ak yokkute nu nga nun sagal nga nu lool bégal nga nu lool dolli nga nu lool nu ne na ñaan sa borom yàggal la ndax lii nga liggéey ci dëkk bi téye ko daara ji téye ko dëkk bi téye ko dëkkandoo yi téye ko famille bi lii rek la sa baay bëggoon te def nga lu kawe sa njortam def nga lu kawe sunu njort yal na sama borom guddal sa fan bi jaay Cheikhul Khadim bëgg nañu lool lool lool lool lool ndax xam na ni moom bis bii euh, sa baay moom dong la fonkoon ba tax na bi mu mujjee badar li mu wax li mu wax nit ñi dégg ko sama bis bii rek a ma jaaxal amoon na ak njàqaram ci bis bi waaye sama borom taxaw na ko taxawal ngeen ko yokk ngeen ko yokk ngeen dëkk bi taaral ngeen dëkk bi yokk ngeen bis bi ñëpp bëgg bëgg nañu bëgg ñëpp bëgg nañu xol yëpp sedd nañu xam nañ ni taxawaay taxaw bi ngeen taxaw bett na ñépp waaye bëgg ngeen ñëpp yal na sama borom leen yokk seen taxawaay yokk seen pas-pas yokk seen man-man bi jaay Cheikhul Khadim barkeb Alaaji Sëriñ Gueye nun day nun day ñu àndoon ak sëñ bi ah ñun yëg nañu ñun suñu xol yokk na waaw ñun yëg nañu ñun yokk nañ ndax dëkk bi yokk na bis bi yokk na yëg nañu lool xam nañu yokk nañ te loolu bu yokkee rek yokk nañ waaw bu yokkee rek nag yokk nañ yëg nañ ko bu baax a baax ñu ngi ñaan nag ñi nga xam ne ñoo topp suñu gannaaw di suñu tug tànk yi di suñuy doom nga xam ni ñoom ñii ku ci sëñ bi taxul euh, euh, tegul ci penkam tudd la teg na ci sa euh, loxoom su tedd teg ko ci sa bopp ñaanal la ñu bari ñoo topp suñu gannaaw tey ak seeni baay ak seeni nijaay ak seeni ndey topp ci ñun naw ñu nekkee woon démb àndoon ko sëñ bi ñu ànd ko noonu bis ni ko tey ah ñaanal leen rek sama borom yokk passeef gi ak muñ gi ba lu ñu man tey bu déwénee ñu man ko jërëjëf Guèye ñu sant bu baax a baax a baax ñu sant bu baax ñu sant bu baax a baax. nga xam ne yéen aana sëñ Ousmane ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk te leen masawu coono ndax barab bi sori na ba sori goo xam ni. yitte rek moo fi mën a indi nit te sëñ Fall daan wax ne lu ko mat lu ne am na bis yaakaar naa ne màggal juddu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ko gën a mën a màgg muy màggal guddi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag bu ko suñuy maam tàmbalee ba ñëwaat suñuy maamaat ñëw ba suñuy bàyyi ñëw ba agsi ci ñun ñi defoon lu sof ko rek mbir mu nekk nag sos ko moo jafe waaye sof moom ñëpp ko man sof googu nag ñun ci la nekk ñun bu hmm. suñu borom defee tam ñu bokk ci da ngeen ànd ko yéen da ngeen nangu ànd boobu tamit ba at mu jot ba ba bi nekkee ba ni mu fi jógee jamono jun gestoo gis leen ci bis bi mooy wane li ngeen jàpp lu dëgër la ci yéen Sëriñ Tuubaa mbiram mépp mu mën a doon dafa amul tànk ginnaaw la mu am mooy ay jàmbaar yor ko ba jóge fi bàyyi ko ko jàmbaar wala ay jàmbaar yor ko bàyyi fi bàyyi fi yaafus ñu teel ko seen bopp ba gisaat yeneen jàmbaar yu mel ni ñoom ñu joxaat ko tegaat ko seen loxo rek noonu la mbirum sëriñ bi demee waaye dem ginnaaw mukk te du wëlbati ko mukk te du fi jóge ba mukk loolee nag mooy suñu maam ñoo fi nekkoon nekkoon ci lu baax jóge fi suñuy bàyyi ñoo nekk ca ñu ñuy tam ñu nekk fi di góorgóorlu ca loola barab bu nekk daa lu koy dundal barab bii nag sëriñ bi dafa tànnoon ndax mag ñi fi dëkkoon dafa am lu ñaanoon ci barab bi lañ ci ñaanoon nag mu nekk barab boo xam ne dañu fi jàng diine di fi jàng xam-xam fii mu fi nekk nag barab bi du dundal boppam te ñaanoon suñu borom mu sax fi ba faaw màggal guddi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag moom da koo da koo da jar ndax sëriñ bi dafa wax ni li ci gën a neex ci la mu wax ci màggal guddi guddi Yonent bi sallallahu alayhi yaqooduna lil jannati te jullit bu nekk bëgg nga ngërëmul yàlla moom tàbbal la àjjana te bokk na ci li koy maye nag muy magal guddug Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nu suñu borom defee tawfeex gu toll lii suñuy waajur yoroon ko ba jóge fi suñu borom yërëm li ñëpp ak nañ ko yore woon ñun ñii tam ñu mbooloo mu bari toll ni ñu toll ñuy góorgóorlu ci def ko kon war naa mel niñ bëgg guddi gi nag la ci xewaat tam mooy sëriñ bi daa am nu ko baaxee di ko defee mooy at mu jot day tànn kenn ci mag ñi nga xam ne sëriñ Touba ñoo doon yaroon mu jël ko indi ko teg ko di nettali ay jikkoom ak melokaanam ya ak nam sàkku ngërëm li sëriñ bi ba am ko bu guddi gu mu jot na loolu lañ daan jàng loolu daan jàngale ñu diw mii kat sëriñ bee ko yar diw mii de sëriñ bee ko melal lii xëy na lii la ko jural loolu nag ñun tam ba mu fi jógee ci tànk yooyu nag lañ tege mu ahlu badar moom du woon mbooloo mu bari kon tam bu ñu dëkk bu tuddee ko badar jubluwuñ ci nit ñi dañ fee war a bari waaye nag pas-pas bi ñuy am rek na nekk pas-pas bu dëgër ndax ndax kenn àndaloon muy El Hadj Serigne moom toog di nettali ay jëfam mën na yéen ba jant bi so waaye loolu yëpp nag la ko gënaloon mooy bis mu amee ngërëmul Serigne Touba am ngërëmul yàlla am ngërëmul yonent bi sallallahu alayhi wasallam am ngërëmul waajuram bisub keroog la taxaw wax ni sama diggante Serigne bi dama ciy di ci dindi bisub keroog taxaw wax ne sama diggante Serigne Touba dafa mel ni robinet bu ne sama biir kër damay ubbi muy xel loolee nag comme neex nga comme na comme na comme naqare daf nga weddi ko waaye noonu la meloon te loolu tam dañu daan def di ci ñu koy fekke waaw suñu borom defee fi nag bàyyi fi lii tam man de du man sama bopp jëmm ji tax may wax waaye waaye bu fa bàyyi bu fa bàyyi bu bi gën a ndaw tamit de lu tax mu laal suuf ndax fàggu na ko bu dee moo koy maye bu dee bu dee a koy maye tam ñu ni fàgg na ko bu dee moo koy maye bu dee sàkk ngërëm Sëriñ Tuubaa moo koy maye sàkk na ko ba am ko te nit daf maa laaj léegi ni ma lu gën a gaaw ci am ngërëmul yàlla ma ne ko gis ku yàlla gërëm nga sàkk ngërëm moo gën a gaaw ngërëmul yàlla moom na góorgóorlu na ci ba képp koo xam ne jamonoonte naa moom ci nga xam ne sëriñ bi bàyyi te ñu am ngërëmul sëriñ bi fexe woon na ba am seen ngërëm moo xam nga sant Mbàkke moo xam nga sant Diop moo xam sant woo mën a sant dana góorgóorlu jamono ju xëyee ñi nga xam ñoom Sëriñ Tuubaa gërëm mu am seen gërëm loolu nag yàlla ñu ci yàlla dimbali ñu tam ban tege ngeen ñaanal daara ji ñaanal dëkk bi ndax yii la fi bàyyi muy daara ji ak dëkk bi te bëggoon tam koo fonk lool kon nag yàlla nu yàlla defal tawféex yéen ñëpp ba seen liggéey bi nga am yéene ci dëkk bi ci daara ji ngeen mën koo mottali liggéey bii nga xam moom ngeen taxaw bu ngeen ko taxawee jox ko donc pour tànk yi yàlla na leen ko sëriñ Touba fulal te bu leen ko fulal itam denc leen ko foo xam ne yàq du fa àgg barke Cheikhul Khadim wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërë ngeen jëf ربنا لا إله إلا الله ربنا لا إله إلا الله يعبد كل الله رب العالمين ينزعه بخدمة الهادي الأمين نعبد كل الله رب العالمين انساه بخدمة الهادي الأمين waaw ñu ngi nii ñu ngi ci toog yi fi nañ ci añi lañ nekk joxe nañ ndékki ba pare ñu ñu ngi ci añi waaw ah ñëpp a ngi fi nag taalibe yi ñëpp ngi fi ñëpp ñëw nañ képp ku bokk ci daayira bi wala nga di safoo badar wala nga bokk ci taalibe yi alaaj Serigne Gueye sëñ Seexuna Gueye yaa ngi yaa ngi fi gis nga woo taalibe fi nekkee wax dëgg yàlla jàpp ci liggéey bi am ci positif loolu nag ngir yàlla jëmmi sëriñ bi ndax liggéey sëriñ bi lii la liggéey waaw lii fi liggéey boole taalibe ñu ànd di liggéeyal sëriñ bi liggéey sëriñ Touba waaw ba tax na gis nga ko nii wax dëgg yàlla togg yaa ngi nii taalibe yi jàpp ci ñam yi yëpp doy waaw gis nga ko nii waaw fas yéene ànd liggéey rek ndax jëmmi sëriñ bi ak taxawaay bi nga xam ne moom la sëriñ bi def ci def ci dëkk bi yeggale ko barke Sëriñ Tuuba fii moom tey ku ne xam ne ku fi ñëw di nga bëgg di nga kontaan liggéey bi jaar na yoon màggal gi macha allah wax dëgg yàlla chaque année ca kaw ca kanam rek day gën a yokku Badar yàgg nañ fee ñëw yaakaar naa bi ñuy xale yi tuuti lañ ñu fi daan indi te tey ku fi ñëw rek gis Badar ni mu yokkoo démb fi ñëwee ci guddi sama xol bi dafa sedd ndax xam naa ni yokkute am na bu wér ñi ngi ni nag ci waañ bi di waajtaay añ yi ak reer yi di ñaanal sëñ Seexuna mi nga xam ne mooy xalifa ak ñoom soxna Ami ak ay rakam ak yëpp. ñoo ngi ci bernde yi di ko gën a defee nu mu gën a taalu bee rek mu gën a baax ko képp ku fi ñëw beeg rek képp barka na bi Moustapha. salaamaaleykum ñoo ngi gàmmu Badar chaque at ñu ñëw suñu jëwrin asoo ngi nii suñu njëkke suñu séeri suñu lépp texe xeebuñu ñu saay bu ñuy ñëw nag suñuy mbubb dañ ñuy jox dañu koy jox ñuy sol. macha allah at mu at moo ñëw rek nga ne at mi moo gën a dàqat. gis nga ko màggal gaa ngi nii cin yaa ngi nii tege ginaar yaa ngi nii dara jeexu fi barke Serigne Touba. di sant Alaaji Serigne Gueye suñu buntu Cheikhul at dañuy sant di sant di sant lii rek sant la yokk la dooleeku la te lépp kenn ko waral mu Alaaji Serigne Gueye moo ñu fàkkal wan ñu yoon ban ñu nii ngeen di jaar ñuy santaat ci woote gi ñu woote doomu aadama yi ñëw. Badar yàgg ngeen fee teew yàgg ngeen a ñëw mais xam ngeen ni at mu jot day dolleeku di sant nag suñu baay bii muy baay Mortala Gueye di ko ñaanal fan wu gudd lool bi ma ñëwaatee gis ko tey sama xol dafa sedd tey ñaan yàlla di ko fekk at yu baree bare baree bari di ñaanal nag alaaj sëriñ Gueye muy sëñ Cheikh naa Gueye di ko ñaanal yàlla dëgëral taxawaayam bu baax a baax jooy ñu baay jooy ñu lenn ngir moom boole na ñëpp ci boppam oyofal boppam Vamos, vamos. yàgg na yàgg sëriñ bi waxoon mag ñi rek ci lañ nekk ak ñoom saa su ne mooy bu ñu xëyee jàng alxuraan bu ngoonee ñu jàng xasiida di fexe di leen tàggat rek saa su ne ci bëggu sëriñ bi di bëggu suñu borom subhaanahu wa mooy fexe ba tegu ci jub mooy fexe ba dëggu mooy fexe ba dëggal mooy fexe ba muslu ci seytaane ak beddam ba muy jaar Cheikh mus saa nag mm, dañu ànd ak moom ànd boo xamante ne ni Euh, rafet na jot ci ne sëriñ bi bëgg na ci euh, ndax saa su ne gis ñu ci moom lenn loo xamante ne ni dana tax ñu xeeb ko nee ndax sama borom daf ko natt ci moom euh, lépp lu muy nekk moom nee daf sëñ Moussa daf koy laaj ba mu ne ko waa baax na nee na bu dee lu muy door itam ko tàmbali nee daf koy tàmbalee door waxtaan ci moom ba mu ne ko mën nga koo tàmbali mën naa nekk nee na mën naa nekk yi itam te tàmbali yëpp teg ko fenn ludul. dafa xam ne képp koo dafa xam ne képp koo xamante ne ni jëm nga ci lu baax. Serigne Touba daf lay wommatal lu baax. Serigne Touba daf lay wommatal lu baax ndok. na ngeen fab daje yéen ñaar. bu tàmbalee dara rek. nee tax bu suñu saa tàmbalee dara rek. xalaat lu bari na lu xalaat ya bari bari bari. nee na ko tàmbali ba noppi rek. nee na bu tàmbalee ba noppi nag nee na lépp lu cay ñëw nag ca la ko cay fekk nee na suñu borom dimbali ko nag ba defal ko tawféexi lii mu tàmbali nee na moom ci boppam ëpp na ko ba mu dajale mbooloo foofu ci kër ga ba mu dajale mbooloo foofu ci kër ga ngir ñu jàppale ko ci ci liggéey bi nee na li mooy liggéey boo xamante ne yëg na ne Sëriñ Tuubaa teel na ko gàttandu nee kenn ku nekk boo tàmbalee ci la nga mën roq ba nga nekk. woo fa ay xale. woo di tànk di ay tuut tànk. nga fas yéene def ci ñoom lu baax. te foo toll di gis njariñ la. te foo toll nee na kon wax jooju nga xam ne amul njariñ. ak werante bu bari bi. da leen dafay daal di wàññeeku. nee na kon nag yalla na ko yàlla dimbali. ndimbali ko sama borom dimbali ba ko ñaanalee nag. nee na mu ak wér. yàlla na ko sama borom defal. nee na li ci des na moom moom. nee amul lu mu ci ndax sëriñ bi la ko dénk. waaye tamit ubbi lépp loo xam te ni bii moo di bernde bi sukkarin aw laxam maanaam lépp loo xam ne xeetu ñam la naan ak lekk bàyyiwuñu dara lépp la ñuy waajal ngir ñi nga xam ne ñooy ñëw ngir màggal guddi gi ñoom ñëpp ku nekk mën a xewlu fépp fa may nekk ci biir dëkk bi nga xam ne moo di Badar. salaam wa waa Tawfekh ñu ngi lay siyaar bu baax a baax di siyaare mbokki taal bi nga xam ne ñoo fi daje fii moom mooy waañu Badar mooy di waañ woo xam ne nag fii mooy cosaan bépp waañ woo xam si dégg ko ci Badar rek ci bii yaakaar naa ci la soqi ko ndax Badar gépp ci gàmm gi wenn waañ moo fi nekkat muy wii Alxaaji Sëriñ Gueye di def berne yi di rey xéewal yëpp di ko andi ñëpp di ko bokk di soq ko fu ne ndax yi di fa jóge ci dëkk yi ba tey gi suñu doon def tawféex nag xéwali yaatu lool waañu nag di waañu badar euh, sëriñ Fallou Guèye badar jiite ko kook ko ak daayira badar ak daayira Tëngéej ak euh, daayira yu bare bari ba mu si fii tey jii nii gaa yi ànd jeeg tawféex nag ak euh, pësseef bu baax a baax a baax ñu ciy liggéey liggéey bu am solo ca yàlla rek tax. kër ma xaale kan ngiraa dëkk sama dara plaali suuf ci badar maa leen sant ñoom ñëpp ci xalifa bi ak rakam ñoom ñëpp maa leen sant di leen gërëm alaaji sëñ Gueye kenn ñëkk mu moom kenn ñëkk mu ci moom wóor na Njaay sufóor mais doon ab sufóoram defal na ma lu ne lu defal na ma ko Gueye yal na yàlla yërëm te leeral àjjanaam njabootam gii mi fi bàyyi yal na yàlla teg si ñoom loxo sëñ Fallou Gueye ngi ni namuñu dara lu mu bëgg dañ koy defal sëñ Seexu naa noonu ma ku naa kulim juum daal waaye ñu wàllu mboolem alaaji sëñ Gueye eh, jamono rek sant nañ leen gërëm nañ leen. ndax tund wi kat waxuma laa badar waaye tund wi sax àll ci sëñ Gueye am na lu mu fi def ku fi yeewoo ku rek war nga di jërëjëf àll ci sëñ Gueye ndax am na lu fi def nit nag bala nga koo xam rek dara wan ngeen waaye fi ne ñëpp buñu ko saataan àll ci sëñ Gueye dinañ ko teg seen fukki loxo àll ci sëñ Gueye yàlla na ko yàlla ak sëriñ Touba defal ak leer te àllaax rek ga mu tëdd. dara jeexu fi Gueye lépp ñoo ngi si lépp daal dara jeexu fi macha gi waaw ñoo koy ñaanal nag mu yokk rek. ñu ngi si waañu sax fàllu borom Badar Gueye ñu ngi ñaanal seexu naa yal na fi yàgg te wér ak ay rakkam soxna Oumy Ndiaye ñu ngi koy ñaanal ñu taalibe yi. di ñaanal sëñ fàllu borom waañu yàlla may إنسانه بخدمة الهادي الأمين الحمد لله على الهي مسبب إبليس بالانتهاء الحمد لله على الهي مسبب إبليس بالانتهاء dëkk bu sell dëkk boo xam ne si ni benn dëkk la ci dëkk yi muy Badar Gueye te jàmbaar nekkan góor yàlla nekkanti fi yàlla nekkanti koo xam ni boo tuddee Badar Gueye xel yëpp dem damay faral di wax naa géej naa laa gis jëmm la waaye na mën naa la joo dégg jikko la El Hadj Serigne doon koo xamee ne siini nitug yàlla piir la góor yàlla piir la waaye ñu feggoog jëmm joo xamee ne si nii muy Serigne Jaxate Serigne Jaxate di ku baax doon kennan ci Alaaji Serigne Gueye waaye taalib Cheikh Mamadou Mourtala mbiram yëpp sëriñ bi lay waaje sëriñ bi lay wàllee waaye bëggan gum bëggan Alaaji Serigne Gueye jëmm ju baax ji digganteem ak El sëriñ géey boo ko nee jàkk rek ku xam ne sëriñ géey boo xoolee tuwaat fa kàlla ji taayam sa xel dem ci moom nit ki nag bu la soppi da koy soppi waaye mu daal soppan El sëriñ Serigne Gueye moo tax El Hadj ah moo tax soppi ko. jëmm ju baax ji di Serigne Moustapha Diakhaté ci la ko xoolan sopp ko ci bëgg ko ci nampatal ko ci moom ah mu namp ci abam ah mande kon yàlla na yàlla sàmm defal ko jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla bu baax di jul ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam sant suñu borom bi nga xam ne moo ñu baaxee woon déwén ñu fekk lii baaxee waat ñu rek ñu fekk ko wax ji moom du génn rek sant muy bis boo xam ne yàlla nangu na ko ak rasulullah cheikhul xadim borom yàgg koo taxawal te suñu borom defal tawféex nga fekk ko ak cant rek moo ñu war ñu nag suñu waxi démb mooy suñu waxi tey mooy suñu waxi ëllëg dara du génn Serigne Touba jëmm ji taxawloon lii it pas-pas rek ci la ne ba ñu wuy si ko ci lépp ba lu mu tàllal rek yàlla fekk si ko ci ñu ñëw nag tey ànd ko njabootam di nuyu sëñ Cheikhouna Guèye mi nga xam ne mooy xalifaam di tegi soxna Ami Guèye mi nga xam ne fii ñu toog di wax ci pàkkam la bokk ñaan suñu borom daal lépp lu fi waay sàkku si guddi àggat na ko ndax béréb moom bu ko yàlla xisee nungu la fa ne bisit yàlla nungul bis ba lu waay soxla rek mën naa yomb ci moom li may wax démb daal li ko wax tey mooy borom bis bi moom leen rek sikkam xol ba Serigne Touba lekk na ko la mag ña joxe la joxe ñett mag ña toppoon Cheikhul Khadim lañ jox sëñ Bàmba la sëñ gi ba dal jox sëñ ñun loolu lañ njëkk ci moom loolu lañ gis ci moom ginnaaw bi ñu doonee alali Cheikh Mouhamadou Mourtala yàlla boole ñoo moom man ne mën naa seere ni moom jëmmam lépp man-manam yëpp dooleem yëpp addunaam yëpp àllaaxarim yëpp jox na ko sëñ Tuubaa ku mel ni kooku nag wax dëgg yàlla bu sampee lu mel nii bëgg wéyale bañ wéyale ñoo ngi ñaan suñu borom ci barkeb Cheikhul Khadim yàlla bu ñu génn ak taalibe yàlla na sama borom dimbali def ñuy taalibe ci barkeb Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf barke sëñ Tuubaa yawmal qiyaamati bil busra wa xibtaati wa man yulaasim fi dunya mujaadalahu يوم القيامة بالبشرى وخبتات ومن يلازم جل الدار مسعده ما تدابر ياس بسنيات ومن يمل عنه في الأوقات متصلا فإنه سده بشر الرسيلات خسده عنه أزعر تعد إلى شر المسار كبر وإزار على نيب هبل لدنياك ماد للخليقات كساك جوف يقين وهو سادسها وسلطه بتنسير ابتداءات نعم الذي جاءنا من سلك الجلال به وقادنا من غرور للفضيلات فلا أفوض أمري هنا وغدا لغيري بعد ربي في البريات يا رب الخلق إني خادم لك ما أيا بماء وسائل بالأسيلات ولم رسالتك دنيا التي قدفت لدى سويد بما أصنع من أبياتي بل اهتدتك يا مولاي مرتقيا بك إذا بعد ما تمو خطيئاتي عليك والآل والأصحاب خير صلاة لكل سلام يا أهل المسيات سيا متغانينا أتخاسس ونسي جني بويا نانو بيبان النار رجاء جيني بويا نانو bi sukarin aw laxami maanaam lépp loo xam ne xeetu ñam la naan ak lekk bàyyiwuñu dara lépp la ñuy waajal ngir ñi nga xam ne ñooy ñëw ngir màggal guddi gi. góor ay jigéen ay mag ay ndaw yu takku ñoom ñëpp kenn bëggu see des ginnaaw si màggal guddi gu tedd gi ñoom ñëpp takk seen digg takk seen laxasaay ànd ak waa dëkk bi ànd ak mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk si gox yu war dëkk bi ñoom ñëpp ngir guddi gi gën a mucc ayib. jaara am jaara jërëjëfati maam jaara faral sa doom ma jaaju jaara amma musa jaara maam am jaara maam jaara amoro musa amoro musa amoro yaa ko waral sa doom jaara amma sabali jaara fa maam jaara jërëjëfati maam jaara am jaara maam jaara faral sa doom ma jaaju jaara

jàppale na ami gay taaw njëkk a junni njëkk a baax moom la ñuy jàppale takk ndigali nan soxlawuñu dara ñoo ngi nuyu nag sëñ Seexu naa mi xam ne mooy xalifa bi ñu ngi koy siyaare bu baax bu wér di ko ñaanal yàlla fi yàgg ci barke sëriñ bu baax ba mu waay sëñ gi ba mu doy sëkkal nga ba mu waay seere ba mu doy sëkk ñëpp gi jooy na yóbboo su joora yakkal nga waa mu ngi sant yàlla bu baax a baax ci dajale gi mu dajalewaat ci barab bu sell bi moom nag li nga xam ne noonu nga ko sàkkoo ci ñun xam naa fàttali lay doon waaye fàttali nag suñu borom a ñu ko sant ndax dina jariñ ñi nga xam ne ñoo am pas-pas yu wér yi kon parce que li nga sàkk woon mooy ñu fàttali li ñu dajale fii li ñu fi dajale nag lu yàgg la mooy màggal suñ borom gàmm gi nag am na histoire bu gudd am na bu gàtt bu gudd bi mooy yeesu fi ndax moom Cheikh Mouhamadul Habib mi nga xam ni moo sañ ci barab bi bëggam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eggoon na ci tudde na ko juróom-ñaari bant juróom-ñaareel ba moo toog nga xam ni ku mu ko tuddee mu jiitu bu amaatee keneen mu tuddee ko bu amaatee keneen mu tuddee ko ko ba muy juróom-ñaar juróom-ñaareel ba moo jur Alaaji Sëriñ moom la ñu woy Sëriñ Mor Asta kon ak bëggam yonent bi sallallahu alayhi lu fesoon la lu leeroon la njaboot gi mu fi bàyyi woon Cheikhul Khadim ak ni mu mel nga xam ne suñu borom da koo joxoon lépp moom it bi mu ñëwee barab bii ak njabootam bi ñu demee ca moom dafa leen a dë dë sampal leen ci barab bi ndax dafa bokk ci barab bi nga xam ne dañu warut gent moo tax mu delloo si leen ñoom ñépp ñu nekk fii di taxawal lislaam di ko ziyaare ji di bindi arxuraan di bindi kaamil di ko jox kon ñooñu it bañ bañ ci nekkee sëriñ Omar moo fi nekkoon jamono boobu sëriñ Omar nag wax nañ ni gàmm gi nga xam ni moom la daan taxawal fii eggoon na ci ñu koy gam-gam leel te xam ngeen lu sëriñ Touba moom moom deesu ko tëkkaleeg dara waaye wane woon rek ni mbooloo mi daan toll moo taxoon ñu ko daan gam-gamle ak gàmm googu sëriñ Omar daan kon loolu mooy cosaan lu gudd la kon yàgg na fi lool waaye nag 1979 la ko jàmbaari lislaam ji taxawalaat fii ngir fàttali ñaari mbir benn bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme noonu ma ko waxee woon te lépp dugg ci waaye fàttali sunu jàmbaari lislaam ji nga xam ne bu lislaam moomee boppam fii ci sunu gox yi moo tax muy xaadim Mustafa moom nag ni mu ko daan defee mooy day fàttali yonent bi fàttali sëriñ bi waaye ñooñu yaatu nañ day seet ci ñoom koo xam ni bu ñuy ko jëlee mën nañoo jël ci moom ak bind bu subaa ñu njëlaat bu subaa ñu jëlaat loolu mooy wane ni sëriñ bi yaatule na waaye côté bu nekk lañ ko mën a dugge lislaam it euh, lu yaatul la du lu xat kon loolu mooy mooy cosaanul euh, lu lu gàttali kon soixante-dix-neuf ak léegi yaakaar naa gàtt na ci dundu doomu aadama gudd na waaye ab diir la def na ab diir bi fi jógee ba léegi nag euh, xalifaam sëriñ naa Guèye ànd ak njaboot gépp di ko taxawal yàlla na yàgg yàlla na ko yàgg a taxawe lool ñàkk ko ànd ak moom kon loolu mooy li nga xam ne moo ñu dajale ci barab fàttaliku yonente bi sallallahu la wa sallam fàttaliku jàmbaaram jooju nga xam ni moom dafa jëloon léppam jox ko boppam jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy xaadim Mustafa moom jàmbaaram yooyu nga xam ne ñoo nekkoon ci wetam lu ñu am moo leen ko jox ñu fàttali ci ñoom seeni jikkoo loolu mooy li nga xam moom lañu woo woo jullit ñi fii mu it bis boo xam ni dañ ci daje ngir ñaan dañ ci daje ngir eh, loolu nga xam moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ni mooy sunu ngànnaay muy addu'a ñu àndandoo ñun ñëpp rek kenn ku nekk ñaan ko mu defal ñu jàmm ci réew mi defal jàmm ci nit ñi def jàmm ci xol yi ndax yooyu bu amee rek yu baree bari yi ñu bëgg dina mën a nekk kon yàlla nañu yàlla defal tawféex te képp koo xam ne teew nga fi eh, ñu tudde bis bi Cheikh Mouhamadul Fadal nga loolu moom daanaka dafa dul amati man ni ma ko gisee dafa dul amati daanaka luñ ci luñ ci luñ ciy tegate maanaam ndax moom tur bi ci boppam dafa am lu mu li mu wundu li mu nu dafa dafa dafa doy ci ki xam ñaareel ba nag mooy jëmm ji ak li mu dox ak li mu li mu def ci réew mi euh, dégg naa ñuy wax ni sëriñ bi nee na mooy Sénégal waaye loolu nag dama yaakaar ni koy tekkee jëmale ko ci ak mbokk ak yooyu sax du loolu waaw ndax liy defar Sénégal mooy yaatal mooy xol bu sell te rafet loo am jiital ci nit ñi yow nga nekk ci ginnaaw noonu la la Cheikh Mouhamadul Fadal doon dunde moo tax lu lu mës a sumb mu egg kon loolu bind la boo xam ne mën nañ ko jàng ci moom mu bokk ci bind yu bari yi ñu mën a jàng ci moom waaw kon da xay na euh, kàddu seere la woon rek nga sàkk ko ci ñun mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, ginnaaw bi ma ndokkeelee sunu xarit sunu soppe bu baax bi nga xam ni muy imaam Serigne Moustapha Guèye jaarale ci moom sunu nuyoo ak sunu ziar ak sunu ndokkeel ki nga xam ni mooy xalifi kër gi tey di Serigne na di nuyu mbooleem njaboot gi eh, xam naa damay àbb ñaari bayti sunu sang bu tedd ba Serigne Touba radiyallahu anhu dafa waxoon ni zur man tuxibu wa in chattat bika daaru wa xaala min dunihi sahlun wa awaaru kon loolu itam moo ñu dal ci barab bu tedd bii barab bu tedd bii nga xam ni li taxoon ñu sanc ko cheikh Mouhamadul Moustapha wax na ko léegi jëmmi yàllay kese di fi jàngale alquran di fi tabax ay doomi aadama di fi fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa di fi fàttaliku jàmbaaram ju mag ja di tànn saa su ne kenn ci ñooñee mu defaroon moo xam ci njabootam la walla ci cheikh yi la fàttaliku jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël ciy bind jàngale ko waaye jël kenn ca ñooñee itam jàngale ay jikkoom ak jomam ak diineem ngir bi biñ fi jógee mu doon ay bind kon barab bi barabu leer la barabu nangu ñaan la kon laa yamna annaka bu'dun min ziyaaratihi inna al muhibba liman yahwahu zawwaab kon lay jeex na kon alhamdulilah bi nu yàlla baaxee nu jaar ci diggante bii nga xam ne léeg-léeg nga gis kekk ni ko sëñ bi waxee léeg-léeg nga gis suuf waaye doxul suñ digganteeg bañ a dikk kon loolu sant yàlla la ndax wér na ni ku fi ñëw da nga fi tëbb ci leer te barke matul xeeb de fu ñu ne fa la ne wallahi dawal dem ndax li ne ci barke yàlla rek ko xam ñi yàlla tofal barke fa tabaraka allahu ma sha allahu xàmmee nañ leen ak ñi nga xam ni ah ñeneen ñu mel ni neen kon sëñ Moustapha li nga wax dama ciy bañ a am koy bañ a ñaxeel waaye nu ngi leen di sant di leen gërëm di mbokki taalibe yi mbokki jullit yi xanaa ñuy yëkkati kàddu yu nuyoo rek ak ziar ak ndokkeel jëme ko ci mboolem njaboot gi njabootu Sëriñ Tuubaa gi ak fu mën a nekk te jiital ci Seex Muhammadul Muntaqa ñaan suñ borom subhaanahu wa taala yokk ay fanam ak wéram ak mboolem njaboot gi fépp nuyu mboolem njabooti lislaam yi nga xam ne nii ñoom ñooy wuutoonte ci barab yu yu bokkul yi ci te foo dem rek ña fa nekk toogal fa ña fa des fu ñenn ña toog itam mu mel ne ñoo fa représenté ña fa des te loolu yaakaar naa ne ñu ngi nuyu imaam Fall mi nga xam ne kàddu yi mu yëkkati wane na loolu waa Eh, di nuyu sëñ naa Guèye mi nga xam ne nii moom mooy xalifa El sëriñ Serigne ak rakkam yëpp jaare ko ci sama kóllëre bopp muy sëriñ Moustapha mi nga xam ne nii wax yàlla mooy ak sabab ci sunu ñëw fii ndax eh, mën nañoo wax ne El Hadj Serigne moom naa miinuñu ko waaye nag lim def ci njabootam tax na ñu ñu ñu xam dara ci moom ndax wër démb rek. damay wax ne am na ko may waxal loolu laa ko wax dama ne ko ñoom de ñépp jaar nañ ci yoon ñi ma ci xam ñëpp mooy mooy moom mi sëñ Abdu Lahat ñoom ak mel ne sëñ Saaliw ñoom ñëpp daal koo ci gis yaa nga yëngatu ci daara di yëngatu ci luy yare ak luy jëmale lislaam kanam loolu nag mooy wane way jur wa ak bëgg-bëggam nekkoon ak fa mu leen fa mu leen tegoon nit ki moom soxlawul nga di ko xam waaye boo gisee ku mu defar mën nga koo xamee ca ca ca mën nga koo xamee ca ñoom waaw loolu moom loolu leer na ma euh, kon ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen ndokkeel ci bis bi di am mbégte nag ci ñëw fi ci ñaari aspect mooy mooy bokk gi pas-pas ñaareel bi mooy kóllëre gi doxaat suñu diggante te lépp yitte ju ju ju ju màgg ak jikko yu rafet rek lal ko te loolu yaakaar naa mooy li nga doon junj léegi ne yonente bi sallallahu alayhi wa li muy màgg-màgg bi ko suñu boroom di tagg ak di ñu ko royloo dafa joxoñ jikko ya wa innaka la ala xuluqin azim te yaakaar naa ne alquranul karim itam boo demee suuratul suratul mulk yàlla bi muy wax ne dafa bind eh, dee ak dund dafa wax ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ngir xool leen ba xam kan moo ci gën a rafet eh, aw jëfin ak defin ak tegin te yaakaar naa baatu teggin ci loolu la jóge gën a rafet ca lañ lay lañ lay def loo la ca gën a rafet ka ko gën a mën a def kooku moo ci ëpp tagg te loolu wax dëgg yàlla ñoo ngi koy ñoo ngi koy seere ci ñoom bu baax a baax a baax sant itam ci ni ñuy wanee yoon ndax ñoom dañoo toppante boo ñëwee gis sëñ Seexuna ñoom ñëpp ñu nangul ko te ku nekk mënoon ngaa taxaw fële Euh, xam ne am nga xam-xam bi am nga potentiel yi mu laaj mm-hmm. mais teewul yooyu yëpp dañ ko teg ne mm-hmm. dund li li ñu war a àndee mooy ak murit te yi itam la leen ñeneen ñi di nawe mm-hmm. euh, bu ko defee gën ko dëgëral ci ñi ñuy féete suuf ba ñëpp rek euh, dafay dafay baax lool ñu ngi sant bu baax collègue yi fi ñëw yëpp ak ak njaboot gi taxawaay yi rafet na bernde yi bari na macha allah ku sañoon moom da nga fi nekk lu bare bari waaye nag nii la ñu ngi ñu ngi ñu ngi nuyoo bu baax daal di siyaar